sama ma riche sama may noble sama ma am personnalité sa maam la Serigne Touba takkal ay garaat sa maam la Serigne Touba yëkkati aj ko foo xam ni bët bu ca waaye ku ko xam dund ko foo mën a dem ci àdduna ñu cëral kan la ñu bëgg a jox kàddu gi nag ki am ngërëmal doomi Serigne Touba yi jamono teel yëpp kii baayam fii Cheikh Sidi Mokhtar nga leen koy fekk moo àndoon ak mboolem njabootu maam Cheikh Anta yëpp ñu koy woowee Darou Salaam ci biir kër Serigne Mokhtar di ko defar ànd ak mboolem njabootu Serigne tey ba mu demee mi ci chantier Cheikh ni la bi yëpp maa se ci Serigne Cheikh ni la sa way jur doyloo woon ba def la jëwriñ noonee lañ la doyloo ndax mosuñoo seq ak sa way jur mosta seq ak suñuy way jur lu ñaaw yow mi it mosuñoo seq ak lu ñaaw. loolu mooy maam Cheikh di leen nuyu ci turu njabootu Serigne Afia te Serigne Saliou Mbacke nekk ca bopp ba waaye Serigne Moustapha moom sëñ Abdoulaye Karam teew fi te jataay bii mu teew mu daan ko def bi fi way juram nekkee. ci kanam sëriñ Modou Rokhaya magam ja di ànd ak sëriñ Cheikh Anta di taxawu lii yaakaar naa ne ku seetlu la ko tàmbalee ci 1983 ci jamonoy nguuru président Abdou Diouf ba bisub tey bii cérémonie officielle bu fi mas def ca teewaayu sëriñ Moustapha Diatou sëriñ Abdou Gora ak sëriñ Amidou nag sëriñu Omar ak seeni rak boo gisee sëriñ Cheikh Anta gis nga sëriñ Moustapha Lakaram ca wetam mu daan wax ci turu njaboot gi ànd boobu nag moo may mbooleem njabootu maam Cheikh Anta gépp ak mbooleem njabootu sëriñ Afe gépp ñu àndandoo ci taxaw ci bis bii nga xam ne amuñu benn bis bu ko gën a ci àdduna ndax mooy bis bi nga xam ne bu amutoon yëkkate fi wax laa ilaha illallah ci senegal dana mel ne ba lislaam di soog a taxaw dañ ko daan wax ci ay tax bis bi bu amutoon amee wut fii ci Daaru Salaam ne ko ni duñ mën a am ministre bu toogandoog ñun di wax dama ne ñu naan ha mu yaakaar Serigne Touba wala mu yaakaar El Hadj kon ne ko ay ministre yu xonq yu jóge France ñoo ñu yilif loolee nag kenn nit moo ko liggéey benn loxo moo ko liggéey fekkoon fi ay mbëri lislaam yoo xam ne bañ xamee ne sëriñ bi takk na laxasaayam jëm ci géew bi ñoom ñëpp dana maase àndandoo kenn ku ne dem ci sa jàjji di ñaan sëñ bi am ndam loolu moo sabab nga gis bi mbooleem turuxu lislaam yëpp ñu bokk teew ci baas bi bis boobu nag sëriñ Tuubaa liggéeyaloon yàlla ba am ci ndam ne ca Gabon laaj fa boroomam subhanahu wa taala na ko ginnaaw jeexal nga sama liggéey te mënuma ñàkk a ñibbiwaat su ma demee Sénégal yaa ma waxoon ne ma Touba bul fa tegati sa tànk sa bët duutu ko gis ci àdduna te sama kër ga nekkoon ca Daaru Alimul Xabiir sëñ Dame Abdourahmane Lo def na ko daara di fa jàngale sama kër ga ca Daarul Manaan tas na sama kër ga ca Mbàkke Baari tas na loolu moo taxoon mu bind di wax naan xusuuri xàllat wa ahlu ami tafarraxa sama kër samay kër tas na sama njaboot tasaaroo na suñ borom na ko su boobaa nag diggalaat naa la nga delluwaat ci sa kër gu njëkk nga ma la diggaloon ba sa baay faatoo nga sanc ko tudd ko Daaru Salaam mu bind wax ak boppam ni lahu taala ruyubi min idaaya ila daari salaam allati tubna bi tahdiidi kon ñëwug Serigne Touba ci Sénégal wàccug Serigne Touba ci Daaru Salaam suñ borom moo ko ko digale ca Gabon mu bind ko ci ay xasidaam sama ñëw bi muy jógee tubaab bi am muy tiit ci moom li tax monsieur le ministre seeni xel war a daal ci lu ngeen dégg ci adduna bi ñu naan ay terroriste ay jihadiste amu ci kenn koo xam ne say pexe wala sa ngànnaay dana dugg Sénégal ndax sëriñ bi da koo aar laata loola di jug la ko may loola nag mooy yàlla nee na comme tooñ la toon na lañ la toon sañ nga koo fayu al anf bil anf suñ daggee sax nopp sax am nga droit daggul nopp waaye nag ku mën a jéggale nag moo gën loolee nag doonoon lu jafe noonu boo jàkk boo jàkkoonteel mu jekku la def la la bëgg lépp nga dem ba jekku ko man koo jéggal ngir yàlla nit yàlla yu bari loolaa leen tëwoon Sëriñ Tuubaa nag kero bi mu amee ndaw jekku ay noonam ne maa ngi ñibbiwaat Daaru Salaam la la na sun borom ma waxanteeg yow benn baat mu ne ko bu muy doon mu ne ko jekku naa samay noonu mu ne ko yow laay déglu su la neexee nguurug français fay su la neexee nguurug français fay te loola ba ko sëñ Tuubaa di wax yàlla andi na misaal am na jamono joo xam ne tuuti kon rek allemand yi jekku français yi bu sëñ Tuubaa ne woon waaw France nguuram duutu am te kon Sénégal gii ci colonisation France la bokk sëñ Tuba bind ne zalimtu min al ahdaai turran ma altija li rabbi wa baabullahi lam yàqu muhtaja bu sëñ Tuba jéggalutoon noonu ya dara du am loolee nag Daaru Salaam gii rek moo ko sababoon moo tax ñu nuyu leen ci rakkam bi baax yow yu nga xam ne moo tudd Cheikh Sidil Mokhtar maam Cheikh Anta te sëñ Moussa Ka waxoon ko benn baat képp mooy sow des la gaa yi xëccoo fii ba gànnaar ndaka nga jóg ñu tudd si di Matar loo gisati muy taraanga desu maam Cheikh Anta loola lan moo ko may maam Cheikh Anta bi cëpp ci waaxu Moussa Sini fii ci Ndakaaru à 1902 bi bato bi taxawee dañu wax ne sëñ tubaab ñëwut tubaab bi dañuy nax ni toog tuuti ñu seen benn tubaab bu xonk génn sol ab kat taxaw ci bunt ba maam Cheikh Rahima Fall nga fa maam Cheikh Anta nga fa yoonu nga ci buntu port bi di xaar sëñ Tuubaa bi tubaab bi génne benn escalier la la dox taxaw ne ana Cheikh Anta maam Cheikh Anta na ñokket mu ne ko kaay wuyu sëriñ bi sëriñ bi bi mu dawee ba dugg ci biir fekk sëriñ Tuubaa toog toogaayam bu njëkk ba maam Cheikh Anta boo ci ay wetam ay ronfañoon sotteeku mu ne ko Cheikh matu dem naa ba ñëw mu ne tekk di ko déglu Cheikh dem nañ ba ñëw des na diir bu gàtt lu waay bëggati ci adduna te laajoo ko borom loxo bu tuuti bi doo jot. seex naka daaru salaam mu ne ko maa ngi la koy mu ne ko fa la ma yanoon na ma ko yanoon ba ma fa jóge ca dutuma seex rafaatala naa la kun fa yàkkoon kon sëti maam Cheikh Anta monsieur le ministre bu ñu toogee woote màggal gii jabootu sëñ Touba gi àndandoo la ko tàmbalee ci Cheikh Sidi Mokhtar moo fi dëkk yónnee ba noppi nag yemut ci yónnee fi wax na suufa ngi nii soo xam ne ku fi teg sa tànk sa yaram xaraam na sa wax te loolu ba mu ko waxee fekkoon na sëñ Touba wax buntu kër yi doomi sëñ Touba yi la ko tàmbalee ci kër Cheikh Mahamadou benn buntu kër desu ci ba ni nga accès ci buntu kër Cheikh Mouhamadou Mourtada la ko tàmbalee ci kër Soxna Faati Ja miy taxawu seen Touba tey doomi ndeyi sëñ Muudu Maamun mi njëkk wutu maam Cheikh ba agsi ci kër Soxna Maymuna borom laylatul xadar benn buntu kër desut ci buntu kër yooyu waaye seexi sëriñ Touba yi ak bokkam yi nga xam ne ñoom la yàlla boole woon ñu bokk sëñ Mbàkke Mor Anta Sali yàlla boole leen ñu bokk maam Maharam te maam ma xaram am fukki buntu kër ak ñaar di juróom-ñett yu góor juróom-ñett yu góor ak ñett yu jigéen juróom-ñetti buntu këram yooyu amu ci benn buntu kër boo xam ne des na ci te buntu kër yi ma xaram yi kat Ibrahima awañang ma nga xam ne awañang may taaw may ma may ma jiitu ci kër maam ma xaram moo jur Ibrahima awañang mi meñ ñii nga gis kër sañu affaire kër sañu garwaan kooku keroog bi bàyyam di ñëw Mbàkke soxna Anta Njaay ci doomi ak soxna Ibrahima Awañan bi muy ñëw Mbàkke téeméeri fas yi naaru góor ñoo ko toppoon ak ñaar téeméeri jaam kooku ñoom dañoo judduwaale teraanga moo tax sëñ Tuubaa ne taw feex ji nekk ci borom gaawaan da ko ganewaale adduna leneen lu ma ci dolli ginnaaw bi la doon waaye dafa ganewaale taw feexee suñu borom kon buntu kër yooyu kenn desu ci bokk yi nga xam ne la ko tàmbalee kër ci maam Cheikh Ibrahima Fall jaar ci kër sëñ Ba Ndumbe mboolem buntu kër yooyu benn buntu kër desul ci buntu kër yooyu sëriñ bi dina la xamal ne màggal gi juróomi fan la ñeenti fan yëpp la ñuy jàng alxuraan bañ ko tàmbalee ba bisub tey fu daaray alxuraan mën a ne ci Sénégal ñëw na Daaru Salaam ñu leen di defal ay berde ba bisub tey jii ñun ñëpp ñu maase àndandoo daje fii ne président yabal fi délégation bu toll nii bii mu yabal yëpp nañ ne dëkk bi ñor na ko ñu lay xamal ne tarixa yi sëriñ Aliou Dia bàyyi ko ba la xel mi ngi nii toog ñooñu sëriñ Touba dem na mbëllëxe ñetti yoon dem na mbëllëxe ñetti yoon te dana feeñ ci bu jëlee kàddoom wala réew ak sëriñ Touba yàgg lool waaye moom nag Seex Saalihu Mbakke yàlla ko yàlla fayal tànnal ko boppam ci askanu mbëllëxe na ko maa la féetewoo ba def la fas ma boole naa la Serigne Cheikh Anta màggal gi muy woote ci mbëllëxee saa yi commencé woote ndawul Serigne Saliou moo koy fekk ca dëkk ak ndawi Serigne Touba moo tax ma ma wax leen ne mbërum Serigne Touba mënee su koo daan ma ngay takkay ndombaam ba pays diwaan mboolem ñi nga xam ne ñooy bëree moom ca mbëllëxee nañ xam ne Serigne Touba comme teg loxo daan ko dootu yokk ndax birazu man barazani birazu man yu barizul muntaqimal barizaman ginnaaw wàcce na yaakaar naa ne sëñ Seck mi toog bàyyi ko Cenaba ñëpp xamoon nañ diggante Serigne Cenaba ak maam Cheikh Anta wëllëre woowu lay feddali ba tax lépp lu xew ci yoonu Murid nga gis ko jëmmam ji moom it teew na fi njabootu Alaaji Moustapha Diagne ñëpp xam Alaaji Moustapha ci sëñ Touba ñëpp xam ko ci sëriñ Mouhamadou Fadal alaaji Jibi Njaay mi ngi nii teew moo baax kon daal màggal gi bi nga xamee ne sëriñ Sidi Muxtaar mi ngi dem Ndakaaru ngir yóbbu ujaaj yi daf ne keneen duyuma ci màggalu Daaru Salaam ku dul sëriñ Mouhamadou Mountakha sama rakk ñu baax moom la fi yabal démb mu wër buntu kër yi sëñ gaawaan yépp Cheikh Mahamadul Bachir mi nga xamne mo moom la wax ne moo yore kàddoom da ko ne bala ga ñew daru salam nakaru na nga fekk Daaru te ko ne xamone ne màggal gi serigne Abdul Khadir ko daan tijji serigne Abdul Hadi ko daan buñu ma sa di tambali jang bi da serigne Abdul Khadir di ñew am fi ñeenti fan buñu ne suba la ñuy mu ñaanal ñu dem serigne Abdul France kon bisa bi kër dëkk gi ni bo xamne moo leen ku mas a faru nag ci réew mi Daaru Salaam nga faru la ko tàmbalee ca Ngalandu keroog bi mu bëggee réew mi maam Cheikh Anta ja dem Makka Blaise Diagne jóg taxaw ci éliminé maam Cheikh Anta éliminé Ngalandu ko loxo na ko toogal ma dem te ñëw juróom fukki junni ca jamono jooja la la dugal ci compte Ngalandu soo ko dem Makka bi mu ñëwee ci la Ngalandu faru jot ci réew mi la ko teg la ca toog mooy Sénégal am indépendance. ki njëkk a yor nguurug Sénégal ginnaaw bu ñu amee indépendance mooy Senghor Senghor keroog ba muy wut mi ñëw ci Serigne Fallou daf ko ne dama ci Serigne Mourou Mamoun lu mu la am waaye fekk na booba mu am ku ku muy xëccal réew mi ba kooka defe ne jekku na bi mu agsee ci Serigne Mourou Mamoun da ko ne Senghor yow falu nga bi demee ci Serigne Fallou mu ne ko lu la Serigne Mourou Mamoun wax mu ne ko nee na ma da nga falu mu ne ko kon demal Daaru Wahab fekk fa sama wax rakk ju ñu wax Maymuna ñoom ñaar ñooñu la yàlla dogal lu ñu wax seenu làmmiñ ma ba demee soxna may na ko kon yàlla fal na la bi mu dikkee sëñ Fallou na ko Senghor sàng ca kaw Abdou Diouf mi ci topp Kumba Dem ma nga xam ne mooy wayjuru Abdou Diouf ma xaali dem ma ko meññ moog mu Modou Rokhaya ñoo ko bokk ñu bokk menn maan ca ban ànd ko moo wax ci làmmiñu boppam ne bi ma daan bi may jàng maam Cheikh Anta man ngi ko daan fekk ci taaxam bi ci lalu gurusam bi mu toog su ma sama baay masaa yónni gune ma di ko ko yëg damay fekk ñu dindi papillon yi booba njaay dem mi njaay njaay juuf mii baayam mi ngi nekk ci mbàkki gii am lu fi doon kon moom it fii la faloo ku ci topp Abdoulaye Wade mortu la Wade may baayam doonoon ab tailleur mbooleem doomi sëñ Tuubaa ku ci nekk bu màggalu Tuubaa masaa ñëw dana la xottel ab complet teg ko ci loxol sëñ Mourou Mamoun mu jox la ko bi yaakaar naa ne jot na leetar boo xam ne bi Abdou bi Abdoulaye Wade jeexaleem njàng 1954 wala 56 la ko bind sëñ Mourou Mamoun na ko samam njàng jeex na te damay ñibbi si Sénégal te damaa bu bu ma dikkee man a liggéeyal Sénégal boo ma tontoon ak leetar bi du ma fa fekk ndax jóg naa ko nag kooku bi mu bëggee réew mi fii la ñëw ku ci topp bi ñu wutee mu fekk fii sëñ As bi sëñ am nelawee sëñ Ibataar mais ma ko fa andi yàgg na fee andi ay docteur màggalu Daaru Salaam ñu def ñu def euh, consultation gratuite sëñ Ibrahima dara ko jur Macky Sall ba fii sëriñ bi na ko nag falukaay baa ngi nii falukaay bi demal ci mawlud bi rek loo fa bëgg nga fa nga nga nga ñaan ko fa fii la sëñ Touba njëkk a moom la njëkk am ci néeg fii la njëkk am jumaa ju mu jullee kon loolu monsieur le ministre ñëw ngeen ci dëkk boo xam ne xam ngeen ko mbokk yi fi ñëw xam ne ñoo ne ñëw nañ ci dëkk bu ñu xam bi ngeen ñëwee nag ngeen fekk fi doomi dëkk bi du Abdou Mbacke Ndaw Abdou Mbacke Ndaw soxna may mi ko jur sëñ Abdoulaye ko jur kon kooku bu ñu demee ba foofu Mbacke teg ko ci loxoom. daaru salaam biir ci bokk ci biir mbakke te sëñ Moodu Maamun moo waxoon ne damaa bëgg daaru salaam bokk ci commune Mbàkke ndax man Mbàkke laa dëkk te bëgguma Mbàkke fay booba mënoon naa bokk ci Touba kon yaakaar naa ne bokk yépp teew nañ su bokk yëpp teewee nag ni nga xam ne ni la kàddu yi togaloo ñu jox ko Serigne Cheikh Anta mu ànd ak sëriñ Khadim Mbàkke Salim yi nga xam ne Serigne bee leen doyloo moom Serigne Cheikh ne leen kat damaa bëgg ngeen ñëw jàpp ci nag ndax koo xam ne 1974 ba nëgë ni yaa ngi yëngu ci mbir ba dem ba am ay rakk nag yoo xam ne li ma bëgg lépp man ngeen ko kaay leen nag dugg ci biir daal di wax ne nag yéen ay échantillon laa doon def ku leen xool ba gis na li ngeen doon liggéey na daal marchandise maa ngi noonu ñoo yoroon liggéey bi danañ ñëw danañ jël kàddu moom bu kàddoom daanoo Serigne Mbacke Anta. di rakki sëriñ Mor Fati ñu ñaan yàlla mu dolli yërmande ak ay xiiwal ci sëriñ Aspaale mu baax mi nga xam ne fii la daan toog taxawul ko njabootam moo ciy topp jël kàddu su daaneelee danañ jox kàddu gi sëriñ Aliou mu wax ci tur bokk yi nga xamante ne bi ñoo bokk tarixa islam bi su noppee ñu jox sëriñ Abdou Mbacké Ndaw su noppee sëriñ Moustapha Abdoulaye Karam mooy wax ci turu bokk yoonu mur yëpp Je noppee ñu jox Serigne Cheikh eh, monsieur le ministre n'est pas Serigne Cheikh Anta tonto comme Serigne Cheikh Anta bismillah. monsieur le ministre def précision ci Darou Salam Darou Salam day dëkk bo xam Serigne Touba di ci xat-xat metti la fekk ñu ko ko jom ak ngor ak fit sos lo xamanteni ñu ko. te loolu moo waral lii tey bi mu ko sasee it ba mu demee bay fii ci Daaru Salaam fii la Cheikh Moustapha feeñee ak Cheikh Mamadou Fadel jumaa jii li Serigne Touba njëkk rëddal tànkam daan fi julli wéet fi lool mu metti woon lool xat lool këram gi nekkoon nii bi mu demee bay sas Touba ak li fi def lépp ak ñaan ñi fi def ak fi ko fi boromam nangu lépp da ko jël di jox barakam bi def ñu maam Cheikh Anta maam Cheikh Anta am lu mu représenté ci Serigne Touba ngir am na loolu des na ko wax ci bâche am na loo xam des ko wax ci bâche ngir féete na ko foo xamante ni na ci sabab yi sëriñ bi ñibbisiwaat fii ci ñun ba ko doxee matit dem na fekki sëriñ bi sëriñ bi xamal na ko sama borom da xamal na mun loo ma wax naa ko def moo tax mu xamal ko ne ko ndam des koy nettali kon buñ gisaatee sëriñ Touba bokk na ci ñi war a gën a sant muy maam Cheikh Anta gisee tamit lenn ci mbindi sëriñ bokk na ci sant muy maam Cheikh kon dëkk bii fii ci Daaru Salaam bëggoon naa murit yëpp ak ku dul murit xam li fi sëriñ Touba def sëriñ Touba ak jagle la fi def dafa tolloog nag sëriñ Touba yaatule moo bari leen ba fenn fu ci nekk def na fa loo xamante ni boo ko làmbee da nga yaakaar fii rek la def ngi mel ni nga taxaw jàkkaarloo ak ñay wet boo ko da nga yaakaar ne foofu la wante terewuti ki moom yëfam bu ko neexee. jël la ko neex def ko ko neex kon fii ñun ñu taalibe yi day mën di topp Cheikh Ahmadou Bamba fii de fépp de baax na wante fii de jox nañ ko cëru boppam ngir Sëriñ Tuuba taamu gi ko taamu te am na luñ fiy sàkku si te loolu xamal nañ ci bopp te it yàlla won nañu kon nag ma la doon ñaan nga jot ñu suñu message ci président de la république ko fii di Daaru lépp lu ñuy def ci këru diine ci Sénégal rawatina yoonu murit war nañoo dabo yéene ji fi Cheikh Amadou Bamba amoon ak motivation bi amoon ci Daaru Salaam lépp loo xamante ni soxla nañ ko fi ñu mën ko ci jàpp yang eh. ci wax rek kon nag maa ngi sant bu baax di gërëm ñëpp di ñaan yàlla ngeen ñaanal réew mi jàmm ak salaam ñaanal dëkk bii di Mbàkke nga xamante ni fi la Sëriñ Tuubaa gane àddina ak mbiram yu bari fi la nekk ñu ñaan yàlla Mbàkke programme yi fi ak projet ñu am yépp ñu mën ba dañ ci gën a ala mawlana rasulillah sayyiduna wa nabiyuna muhammadin sallallahu alayhi wasallam. sallam bokki julit yi maa ngi yëkkati kàddu mu tuddee ko kàddu yu doomi soxna yi ci kàttanu borom bi tabaraka wa taala gannaaw ba ma jullee di sëlbal ci sangu-sang yi yépp bu di seydina muhammad sallallahu alayhi wa sallam mu mel ni kon kàddu guy xaw a gàtt lay doon waaye yàlla nu yàlla dimbale ba méngoo doomi soxna yi fi teew yépp lay seen yéey na ba taxoon nu ñëw fii mas na nu dal nag 2008 Thierno sëñ Munta sëñ sëñ Murtala yàlla yàlla yokki leeram booba la ko feebar bi daane mu dem Maroc marché bi mu doon def ca New York ñëw mu yebal tabaarakallahu maam moor doomam ne ko kon demal wutuma ci marché bi du ñàkk ñenn nattal ji fii ñu nga fa waaye doomi soxna yu bari mu fekk leen fa ca New York ba nu ñëwee ba Nations Unies doomu soxna yi takk seen kàddu jox ma ko ne ma kon na nga wax nu waxal tey ndax nun nu wéttali si woon maam moor ci jataay bu njëkk bi ko bàyyam njëkk a yónni fii ci New York waaye la ma ko waxoon daal lay waxaat rek doomu soxna yi ma fekk fii te ngeen jël seen daw muy maam Cheikh Anta mii sa maam liggéey mu rëy lool chance la sa baay sàmm ko mu rafet lool ñaari chance la waaye nga ñëw yokk ko nag kenn ëpp la chance ndax da du doy rek ngay laggu ci sa liggéeyu maam di laggu ci sa liggéeyu bàyyi te mënoo samp dara laysa alfatau man yaqulu kana abi inna alfatau man yaqulu anasa yonent ba nee du doy rek ngay bàkkoo sama maama fi defoon lii léeg-léeg da ngay joxe ñu xam ne lee yaa ko def nga ne lii man maa ngi nuyu sëriñ bi bu baax maam Cheikh mu joxal ma nuyoo bi xalifa bi mu yóbbaale képp koo xam ne kii yaa ngi bokk ci Daaru Salaam bu doon xat-xat amul bu ñëwee ku ne dañ lay wër jox la loxo kenn ku ci nekk ñu siyaare la waaye nag gannaaw da ngeen a tànn ndaw ndaw li mat doy muy maam Cheikh ku ñëw bu ko joxee loxo rek moom mooy jël loxo boobu joxal ko ñëpp waaye ku mat a ngi ngeen di ko yónni ku doyee ngi ngeen di ko yónni ku sawar ci ngeen yónni googu waaye ku leen remplacer fu ngeen nekk fu ngeen nekkul danaa ci ñëw léegi bu ma mottalee sama nuyoo. maa ngi nuyu kon képp koo xam ne bokk nga ci njabootu sëriñ bi te nekk ci Daaru Salaam di nuyu kilifa diine yi fi ñëw yépp nag moo xam ni nga ko waxee ku jógee kër Maulana Alhaji Malik mbaa mu jógee kër Cheikhul Islam mbaa mu jógee kër Cheikh Umarul Fuuti yu mbaa mu jógee cenn ba ak fu mën a jógee ku ngeen gis ak ku ngeen gisul daal xam leen ne bésam bii bés bii bésam soo ñëwee sa xel a ngi ci soo ñëwee tiit sa xel a ngi ci nday jamono bu ñu fi nit gisul rek xamal ne lanu téye lu rëy la waaye jëmm jee du ñëw waaye xol be xel be tëb fi yàlla fi lii sax tabaarakallaahu di nuyu kon kilifa yépp di nuyu ministre le ministre Aliou Ndiaye mi nga xam ne moo fi représenté chef de l' état ma bokk ak moom ci lépp bokk moom it ca Linguère mu itam koo xam ne kenn la ci man sëriñ bi maa ngi nuyu sa ndaw yi nga xam ne foo dem toujours mu wax jottali la muy galasini di ko mën a jokkale di ko mën a matale di la seede daal ne doomi soxna yi fi ñëw lebal si wuñ la dañ laa fay si bor ndax lu fi waaye xewle ñëwal nga fa daaru salaam te sa ñëw kër boo wuutee ñun ña niy wàlli sir dañ ni naan lu tax ñëwu man de suma gàmmu daaw nga dem ba ca guddi ga nga am tiq tiq bu rëy nga jot ma ma ne bul déplacé nga yónni say rakk boole sa doom ak galas la ak délégation bu rëy waaye léeg-léeg waaye yóorlu ba yàgg mu ne ma gàmmu gi ko ma ne gàmmu gu ma di guddi jotul ngi ne waaye cérémonie bii xew rek te gisuñ ji maam Cheikh Anta gàmmu gi du neex maanaam ñu ne daaw daf ñu fee may ñaari fas maye fi xaalis bu mujj gi mu lambi posam nga xam ne jeexal na nga yëkkati xaalis bi bayel ma mayel la ku mel noonu bu tardé du neex te it gàmm guñ def gu ne dana fa ram dana fa def mu ndax sëriñ kët buy gàmm dem tiijaan nga yónnee koy nag ba yónnee ko café Touba dikk maye fay fas maye fa xaalis ba jeexal ñi lay laaja yee ñu laaj la ndax kat tuyaaba baax na waaye tu yóbbuy dégg naa baax waaye ku ñëw rek dalaa fay si sa bor dafa fay si daaru salaam ba sa ba bésam waaye xam naa ne duñ la mën a fayee ni nga war a fayee ndax man ñëw naa waaye boo muyu du ma maye fas du ma maye du ma ba jeexam te yow loolu moom nga fekk fii kon maa ngi leen di seetal ne bu jógee nga xam ne kii ab sang la kii sang nag di kóllëre bu yàgg nun yéen lan sant ñaan ku ne jóge maa ngi yër benn téere barki démb ku ñuy wax Cheikh Anta Ba bu xam naa ne ci kéemaani maam Cheikh Anta yi la ndax moom lañ ko tuddee muy professeur nekk fële ci états dafa bind benn livre bu rëy jàpp naa ne jihaadu si la ko tuddee ay junni junni page la waaye boo ko liiree ba ca soixante-huitième page ba ma nga cay wax na ñi meññ ñi sant Mbàkke bala ñu sant waaye nañ doon yëkkatee bagage yay dem ñu naan bàkkuu ji njexeen la gaa yi jël naan Mbàkke waaye mu nekk nga xam ne moo ca jiitu maam Cerno Ousmane Bala tudd nee na keroog bi jógee Fuuta mbëllëxe la wàcc dajante fa ak bërgël bu ñuy wax ma fenti ñang mo meñ ñi sant ñang ñep dafa fananal bu guddi keen wi sàqi ku def fat la nga mom ñu ne ah góorug tukulóor gi ñew fananal fi ak juram gu bari gi day bu tasaro lu way bëgg da ko ci am ndax ta taraas yëpp ngelaw li upp taw bi bari mu taw ba sebeti ñi seen néeg yi woyofoon sax dañoo toj ya ca des muy senn ñu dikk fu góor gi lu ko waroon dara tooyut benn jur dem ñu wax ko góor gi bërgel ma fenti mu ne ñàkk fu la baaxut kii bu mu rëcc fu mu jëm ca lañ ko téye may ko soxna suñuy wax abañ ñang la toppee silsila bi ba mu egg ci maam bi nga xam ne moo meññ ku sant bàkke moo meññ ku sant si noonu yéenay suñuy bërgel ma fenti moomu ci la saa xewar ti ñang jógi bi alaaji Malick feeñee fekk dañoon sunu maam yi ku ci ne ay rastaama ngay daanu ci diggi gannaaw ñu wékk cay seetu lu nu waaye wax nag lu nu yaafi ne gëmunu la waaye bi alaaji Malick dikkee nag dindi lépp ci ñun maam sëñ Touba di suñ mbokk di ku bëggoon ak mbokk wax la dëgg maam sëñ Touba waxuma la ñett yoon at mu jot daana ñëw mbëlëxe ñaari yoon waaye ñëw gu fa ñëw nag yow gu yéeme lay ñëw cooroon lay ñëw ak lolli xam nga lu tax muy ñëw cooroon bu cooroon bi ñëwee day ñëw dajale ñëpp pour suma maam coornooy woo nit ñi ci xur wi waxoon naa ko daaw jéeg ne maam coorno buñ ne Moodu Bambay ñëw booba rajo amul téléphone amul dañuy tëgg ndënd yi ni génn leen ci xur wi bu subaa Moodu Bambay ñëw addina bépp daanu ci xur wi bu ñu demee nag ba moom maam Bamba ñëw day toog ba yàgg mu ne cooroon baa ngi yàllaa ngi ñëw tam moom moom taw bi futteeku leen ngeen liggéey bu kenn yaakaar wërsu bu kenn loolu lay yendoo ba dem ku ruujutoon ruuj ku ruujoon xeeb sa ruuj yàqu waaye bu loolu bi jotee ba yëf yi ñorit mu dellu si waat woote waat ne ah delloo leen yàlla njukkal li ngeen ñorle am na ko amul génn leen asaka dafa war ci li ngeen yor walaat jin ñi gannaaw dem liyee daan indi Bamba Jolof duuti taali bi duwut addi futteeku leen liggéey buñ paré mu né delloo len yalla njukkal ci ligéen am nit ñi joxé seeni asaka mu delluwaat wat fam nekkoon bi mu démé ba nay nattu bi ñew bu joggé mbacké bari jaar jeewal wala ñu yobbu ko nin parce que fu mu duñ nangu mu fanaan fa ndax dañuy bañ nit ñi wër ko maam Cerno te dënd yi ne génn leen ci kër yi wëri moodu bamb ci xur yi defu leen ci kër yi lu ëpp dooleeg di wéttal yi moodu bamba ci xur yi noona lañ jappo bamba ba maam Cerno wan ko ginnaaw su alaaji daawuda ja feeñ wax nañu ne bi tubaab bi ne Modou Bamba day dem le 8 août dafa ne man duma ma dem le 8 août te di mutit le 8 août ndax am na nag ci mag ñi farloo mu gisan leen bokk na ci alaaji Daawuda Dia wax nañ ne keroog war na fanweeri fas ak ñett ay muxaddama ko topp bi mu egsee fekk fi sëriñ bi feranka laayu ci toogaay bu jekk bi sëriñ bi da koo séen na ñokket ak tànkam yooyu ñu xamoon ci sew beek jekk gi ne ñaadam ñaadam dogeeg moom fóon ko ni ko bokk neex Jombat mu ne la ko mu ne ko mbokk neex coono bi ngeen jànkoog dara waru ko lu bokk gi ma bokk ak yéen waaye tey ma dénk leen nag ndax damay dem mooy ne mu ne ko kenn nekku fi ko dul yàlla kat saxal leen ci boppi nit ñi ne yàlla kenn la te moom moom dogal sama dem bii du dogal ak tubaab bi tubaab bi dogalu taxamut kañ lay ñëw waaye yàlla moom ak dogal ba ca desit nag maa ngi koy déglu barki démb bi ngeen di def appel ca Paris ki ko fàttali ma ah, la maam Bamba waxoon sunu maam ya day dégg naa kii waxaat ko bam ne leen saxal leen ne yàlla keddal te moom ab dogal daf caa boole ne jaamu leen ko nag ndax man xaw ma dugg aljanna bu àndut ak jaamu yàlla yéemu ca mu ñu ko dund gu àndut ak dee ak mbaax gu àndut ak ŋàññ moo tax bu dellu see bu botte see it jàppal na ko bona gi rek koo fi dégg mu naan Bamba nii di ca teg waaye waaye bu bona wu noonu démb ba tey jii nag waaye lam leen dénkoon daal mooy saxal leen kennuk yàlla moo moomu dogal xaw ma it dugg aljanna gu àndut ak jaamu yàlla te itam dund ko àndul dee xaw mu ko wala ak itam baax gu àndut ak ñu di la ngañ su ngeen jàppee ci lii mu ne naa mu ne ko naa leen fi fekk ngeen am yàlla ma am leen ngeen am ma su ngeen jàpput ci lii ma am yàlla fekk si leen xanaa jéem a seet nu ma leen dimbali nii la Bamba waxoon sunuy maam la mu tegoon seeni loxo yi def na ko njombaan jàngal wal yaakaadu na kafaru ba fa aaya ja yam mooy naa mun a ko bët bu set nag ma ko sikkaral jay sun waaye su ma dellu see baxal kon kooka xam nga ne xamoon na ne day dellu si waat noonu la nekkee woon ak sunuy maam noonu la nekkee woon jolof dajale nit ñi jàppale leen te maay wax ne gis nga tubaab bi ndekki bu yóbbuwutoon sëñ Bamba loolu lislaam ndax nit ñi duñ xam ndekki ku wóolu yàlla moom lay wekkatee te it nit ñi duñ xam ndekki kuy gëm kuy gëm gëmal yàlla kuy wóolu wóolul yàlla waaye it yaakaaru jullit dootu dëgër fiñ jaarale bamba fépp bu wóolu woon lu dul yàlla du gis lim gis bu fekkeenu kóllëreem ak sëñ eh, yàlla mataliwu ko ba muy dem ak du ko mën a mottali bu yëf yi ñëw damay déglu léegi bi may dugg ngóor si muy mu muy xasaay yi di sëñ Tuubaa ba yàgg ma ne damay waat ci yàlla ne bu waxutoon ne may xaadimu rasuulu yi lii ku ko wax nit ku ne buy dem bu sañoon boo ko jiituwutit doo ko fare gannaaw li Moodu Bamba wax sa wax wax wax rasulullah yi bul sax mokkal arab waaye toogal dëgg ñu di ko way nga way wu ne xool mu basé ko ci boo ci ci ci ci ci bi wàccee ko ca yonent bi jël lépp jox yonent bi dama ne kooku bu la jiitalu tit bu sañoon buy dem doo dafa pare gannaaw kon sëriñ bi ñuy feddalis bu coloré noo ngi sant di gërëm di ñaan nag booloo gii sax fii yàlla dakk sax dakk laa sax dakk mbooloo gii sax fii yàlla na fi sax dakk ndax bi wax na ko de kii yàq moom kay mut bés te lislaam liñ ko yàqal bëri na ñeent yi ñu tuddee woon xulafaawul arba muy Ababacar Sadiq Omar ibnu Khattab Omar ibnu euh, euh, euh, Seydina Omar ak Ousmane ibnu Affan ñett ñëpp dañ leen a boobu Aliou ibnu Abi Talib dañ ko jàmpaak ca Kufa omar ibn al khattab dañ ko jam ci jakk lañ ko jame ousmane dañ ko ciow jasi fekk mi ngi jang jàng alquran ababakar sadiq dañ ko fas lu ko yàgg na ku bon nak bu fekke lu bax du bëgg lu bax and bi ne fi ku ne di ko roy ma bëgg ko fa ma bëgg fa ma dëkk xeyna muta ma keneen bëgg ko fa mu dëkk muta ko ki doley serigne sëriñ ñaani mag ñu bax ñi yalla yalla bo lañu wara and a ànd ñu ànd nun ñii day bu nu àndee rek am na nu doole sëriñ bi wax nga ko léegi wax ko ci waxin bu yéeme bu nu tàqali ko rek fi na dugg waaye bu fekkee ne ki jiitoo ngi yërëm ñi ko jiital wan leen gannaaw ku ci la nga tolloog nu tënk la ko jàmm na ñooyu waaye bu ko topp gënu bu ko déglu rawu la ay daal na la jox ngeen ko lépp moo tax suñ penc yi moo tax suñ démb damay déglu bi may ñëw Habib Sarr xaw ma ñaata at ba mu génnee àddina ak léegi muy firi ci kanam mbay si mu ne ko ñett ñett a ko dese ci réew mi waaye yàlla na bu mu yàqu mooy mu ne ko ñett yooyee mu ne ko ndigal mu ne ko lu des ci ndigal mu ne ko ndigal daal mu rete ko fi dese malaa yi ak malaa ci yoon wi laa koy déglu yéemu ci yàlla ñett mooy mu ne mu rete fi dese ndigal malaaka yi malaayika ak malaa malaayika moom la ko yàlla digaloon ba léegi mu ngi malaan bi bu xëy na docteur bi nu may def mun na ko defal lii defal lii defal lii dana ko def ngir bëgg a wér murit nag moom mi ci ndigal rek waaye ku ba ndigal boobu lu ndugal moom ma nga ca yoon ba rek sakkan lool di la xaar yàlla ñu ci yàlla mos kon sëriñ bi ñu ngi lay feddaliwaat kóllëre santaat di gërëm bu baax di la wax ne it ñu ngi lay baxal man nag sëñ Saliou yàlla mayoon na ma ci may waaye maam Cheikh mii moo ca doon sama bunt moom la sëñ Saliou xëy benn bis ne ko dama laa bëgg a yebal ci sëñ Alioune Niang am lu sëñ saaliw booba nësaruwul xanaa bëggal na ma lu baax waaye li sëñ saliw mën a toppatoo ji réew mi tuuti naa ci dox ko waaye booba bëggal na ma yiw tax mu woo maam cheikh mi yebal ko ci man mii mu ñëw wax ma ko keroog yàlla mi amul kumpa am na ku ma nettali muy alaaji faal mu wax ma ne baayam lañ tuddee bés bi mu ne ma sëriñ bi nee na keroog sa rongañ sottee ko ne ma ne ko damaa sañu ta tagg sama bopp nàcc ne bu ma ca dee xaru la waaye lu toll ni sëñ saliw ciy jamono ku mu yónnee ci yow ne leuf la bëgg te ci yow la koy jaare yeey na fa jaar sey saliw agon nak man ba ci ndax maam Cheikh ne sey alu Dia bu mu amati bes ci man wala mu am ci waxtu bes bu mu ñëwé waxtu bu mu ñëwé bëgg na ma koo gis fi ma ak mom dafa ne man nak ki teye ba yag mu ne ma bu ma doon limi mam ñett lay dem mak yow ñu daje ci jay la jaar da sa waay jur kepp ma ko gis mom daf ma wax mu ne soxna ja taw bu serigne bi moy sama jigeen ci moom euh, euh, tabaarakallahu xëy na wërsëg a ci niw waaye ci zaahir ak baatin sama léppi sëñ saaliwu ci kii la jaare woon xaw ma lenn nag waaye man nga tànn naan suukaru pëndëx laa bëgg ci naan bekk ki naan talsi waaye suukar nga am rek waaye ku daj ci sëñ saaliwu boo mooy bu dee pëndëx nga amoon dootoo bëgg bekk doo bëgg talsi maa la ko wax da ngay ñëw ci sama saal léeg-léeg waaye day toog ba yàgg mu ne ma waaye noo def ba àgg sëriñ bi ci foto yi ma ne ko xanaa sëriñ bi baaxee ma rek ne ba mu ne jëyi waa jiy foto dafa am ñu ne ko déet mu ne ko ba ku firnde baax na xam na ko ma maam Cheikh benn guddi woo Alaaji Fall ne ko dama leen di seedeel na sama waajur génn na àddina bu jigéen sama ku ne xam na ko jolof ña ngi may tàllali loxo di ma ñaan koo denc biig jëwantuma nag damaa janeer ndax julli naa suba ba tëdd waaye damaa jékki-jékki am lu leen ma pëpp ma ne tifeet gis sëñ Saliou mu ne tëll ci benn néeg mi ngi sol yére yu weex tar rek njàpp lu dooy xepp na ma ndicc ci ñaari loxo dama wutal juróom-ñetti téeméer su soxna saa nga ne joxeel ko maa ngi seen sama yaay gi to fi mu toog te loxo yi nii sëngéem mu ne ma wutal juróom-ñetti téeméer joxeel ko ko ma woo sëñ bi woo Alaaji Faal ne ko wóor na ma boo demee juróom-ñetti téeméer yi bor bu doxoon ci diggante soxna seen ak keneen waaye fii ba takkusaan su ma gisul kundoog sama yaay du ma ko joxe foofu laa toog ci buntu bu bitig takkusaan mooy ma gis koo xam ne kii gën damaa mujj li wolof di wax wóoróoróor bu ma gisee ko la jaaxal ma ne soxna saa ngi nii yëkkati juróom-ñetti téeméer jox ko lii day gis naa ko ci sëñ saa ngi yàlla na yàlla doolu gi sutura yàlla yàlla taxawunu ñaan yi ngeen ñaan sëriñ bi xam naa ne mi ngi sa xel waaye boole ci nawet bi ndax daaru salaam yàlla da cee def firnde gu toll ni bëri léeg booy dem sax ne naa yóbbu parasol léeg day taw takk bii moom ku ne takk na ko fi ba tax nawet bi kat fasaale ko yàlla na ndoxam jàmm wàcc yàlla na ndoxam barkeel la muy taw yàlla nañ ko muuroo yàlla na ngeen fi yàgg lool te wér nu di leen feddali suñu kóllëre ci biir ak ci biti wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala te di leen ziar ci turu ahfad maam Cheikh Anta gaawaan bu waxee nag sëti maam Cheikh boroom borom gaawaan wax nañ sëti Cheikh Mouhamadul Maamoun mi sëriñ bi daan wax ne moom amul bàkkaar wax sëti alxaaji sëriñ Takko. ni Serigne Touba dénk ko ne ko xamal ne ñett su ko sunu borom doon baaxee kenn dana ko baaxe sama soppe ba sama sëriñ ba rasulullahi sallallahu alayhi wa te baaxewu ko ko woon muy dund gu ànd ak dee ak baax ko ànd ak ŋàññ ak àjjana ju ànd ak jaamu yàlla wax sëti sëñ Ibra ku ne xam nga digënté ak Serigne Touba ndax ñeenti doon sëñ Gaawaan yoy ñu jëk tuddu ak Serigne Dam ku ci nekk Serigne Touba la jangal yalla am lu def ci yow buñ waxé waxee ñooñu ba ci Serigne Abdou Gora mi sa katum sëñ Gawan seen sët ñom ñepp ñi ngi fi ñi ngi leen di nuyu seen bu waxé ñu ne cheikh yi ak maam cheikh Anta borom gawan di liggéey ak moom te ñu xam ne sëriñ bu mag bi dafay wax ne ay yaa xaadimal laa tan sa sahbuhu fa man yan sahum fal mat hu mat un muqattahu daal di tudd Aboubacar Saddiq suuf si dëxi loo fa ñooñu àndoon ak Serigne Gaawaan itam ñoom ñëpp ñu ngi ànd ak njabootu maam Cheikh Anta kon ñoom itam ci sëti maam Cheikh Anta yi lañ bokk ndax it kat bu ñu fàtte ne àndu pas-pas mu ëpp solo àndu deret ndax kat day saanu fi xafi suuri fala bay na baynakum bu ñu leen nuyoo nag ci turu sëñ Cheikh yi nga xamante ne ginnaaw bi kilifa yépp la ko dalee Serigne Mor Fati ba ci Cheikh Abdoul Khader ba ci njabootu maam Cheikh Anta gépp yëkkati seen kàddu yëkkati seen baat yëkkati seen lépp dénk ko ko bu leen koy doxal moo jëlaat loolu wax ni xale yi dafa bëgg ñu àndandoo taxaw di ko jàppale ci bis bi. te ñu nit ñun ñëpp wax dëgg yàlla sëriñ bi ma wax la ne xale yi amul xej amul seen ñoom ñëpp dañoo am cofeel ci yow ñoom ñëpp ànd ñoo sago ci yow ndax lan ndax gis sa himma te mbir mi kat nit ki war ngaa nangu ku la mat ci lu nekk waaye nag bul nangu ku la mat ci himma ñoom ñëpp nag sëriñ bi ñu lay delluwaat njukkal bu baax a baax di jël nuyoo di ko di la ko jox nga jox ko sa gan yu tedd yi fi nekk ñun njabootu maam Cheikh Anta gi fi toog ci baas bi ñu suñu kilifa ñun ñëpp njaboot sëriñ Afia gi fi toog di sëñ Moustapha Lakaram nga moom itam ni nga xam noonu la ñu demee ndax sunu waajur euh, yaayam doomi sëñ Afia la kon sunu kilifa la ci ñaari fànn njaboot sax moo di gi fi nekk. ñoom itam ñu ziar leen ci loxo sëriñ Cheikh ak itam ñi nga xam ñoo fi tegal nguur gi ñoom ñëpp sëti maam Cheikh yi ñu ngi leen di sant bu baax di leen gërëm sëriñ bi njaboot gi nga xam ne moom nga ñu boole loon ñu wax la ne ay góor lañu ay jàmbaar lañu ñu bëgg seen maam lañu ñoo xam ne seen gaaw njar na leen lépp bis ba nga leen waxee ndigal lii ba tey kenn nelawul ci sept heures matin fekk na leen fii ci barab bi ñuy waaj ngir di tertu gan yi sëñ seexu naan ñi ak xale yi topp ci moom ñëpp ku ci nekk sa alal ak sa jot ak sa waxtu fekkewul li nga xam mu jëm ci bis bi ñoom nag ñu yëkkati ay kàddu yu cant di ko jëmale ci yow Mbàkke ndax bis bi murit yi fi mu toll ci ñoom dinaay dégg ci sa wax Mbàkke ngay wax ni ñi fatxu Makka meloon ci jullit yi ndax ku ne xam nga ne bi yonte bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan estafrance bi alxuraan di wax naan saani isnayni ishuma fil ghaari is yaqulu li zaayidihi laa tahzan inna Allaha ma'ana ku nekk de xam nga ne jamono jooju xatoon na waaye yonte bi sallallahu alayhi wasallam bi muy ubbi Makka de mbégte moo miy jullit ñi àndaloon bi sëriñ bi ñibbisee mbégte moom la murid àndal ndax kat muy bind naan axrajtumuni ناطقين بأنني عبد الإله وإنني لمجاهد وما قالكم إني أجاهد صادق إني لوجه الله جل أجاهد إني أجاهد بالعلوم وبالتقى عبدا خديما والمهيمن ساهد booba de ku ne xam nga ne jamono jooju xatoon na ndax ñetti guddi ndakaaru ya muy binnaan xosóor yi xàllal waaye ba mu ñu gisee de ba woo maam Seex Anta wax ak moom mbégte moom mi nekkoon ci xoli murid yi moo ko mbégte ma jullit yi amoon ñoom rek ñooyam bàkki bu ko defee nag ñoom xale yi ñu am mbégte bu baax di sant monsieur le gouverneur ndax gis nañu taxawaay bi mu ci taxaw bi mu defee CRD bi ndigal yi mu joxoon chef de service yi ñoom ñëpp matal nañu ko li ñu waxante woon ñoom ñëpp ku ci nekk def nga ko ñu xale yi di wax na ñu ngi sant monsieur le préfet bi mu defaatee réunion bi nga xam ne évaluation la fii lépp lu ñu tënkoon ñoom matal nañ ko kon xale yi ñu ngi leen sant bu baax di leen wax ne ngeen àggale cant yooyu ci seen i kilifa. monsieur le gouverneur bi ñuy def bi ñuy def CRD bi foog naa waxoon nañ ko ba nga ne ñu nañ ko nañ muy ñu ngi doon sàkku maanaam diggante euh, yoon yi nga xamante ne moo nekk ci raay bi ba àgg ñëw ba fii ci àttu Darou bi ñu ngi doon sàkku pour ñu ñu ñu ñu defar ko. ndax it dana baax ci màggal Daaru Salaam gi waaye dina baax ci màggal Touba gi ñu ngi doon sàkku tam corniche su Mbàkke bi jaar na la ci buntu dëkk ba jaar ci penku armée li Daaru Salaam bi mu am bërëtël bu dugg si biir dëkk bi ñu ngi ko doon sàkku tam ñu defar ko ndax it xam nañ ne loolu dana baax ci màggal Daaru Salaam gi dana désenclavé dëkk bi ndax it nit ñi jiitu nañ état bi ci biir àll bi sëñ Mor Faty mi nga xam mooy xalifa Maam Si Xantaat mi ngi fàttali président yoon wi nga xamante ne mooy diggante Bambey ak Gaawaan di 18 kilomètres président diggoon na ko ne waa Asiroute danañ ko def ci biir sëran bi mi ngi ko koy fàttali di nuyu monsieur le ministre Aly Ngouille Ndiaye di taalibu Serigne Touba ni ko ñëpp waxee man naa ci seere ndax lu jiitu ñuy am nguur gi waxtaan nañ ci lu jëm ci jumaay Masalikul Jinaan kon xam nañ ne ab taalibu Serigne Touba léegi nag it ma xam rek ne euh, monsieur le ministre ñun. Euh, sëñ Moustapha Diagne dafa ma mos a wax ne euh, tegeleef mënul ak gàntuleef man da yàqub ànd moo tax Daaru Salaam moom kenn du la fi teg dara loo mënul kenn du leen fi ñaan loo xamante lu impossible la waaye comme ay citoyen lañ te mooy cité yi nga xamante ne moo njëkk ci yoonu murit te mooy fi màggal njëkkaam euh, bëggoon nañ daal gëdd gi nga xam ne moom la am ñu gën ko ko jox sëriñ bi nag ñi ngi sant maire bi nga xamante ne sunu mbokk la sunu doomu bàjjan la moom itam engagement yi mu jëloon yëpp matal na ko muy Abdou Mbacke Ndaw xanaa li ma jaaxal rek mooy waxtu bi ñu toll nii xam naa ne xiif na lool <laughs> te bëgg naa def yëfi ndaw Kounda moom monsieur le gouverneur waaye fii moom mooy Daaru Salaam dara du fi jeex sëñ bi xale yi ñu ne li nga xamante ne moo leen motivé mooy loolu sëñ bi waxoon léegi rek sëñ bu mag bi nag dafa am fu ma gis ci mbindam muy wax ne. malakal mawtu ga ñaari yoon la mas a am lu ko xaw a diis ci ndigal loo xam ne sunu borom jox na ko muy benn soxna soo xam ne dafa ëmboon ba tollu di wut matt ci àll bi mucc ci àll bi sunu borom daal yebal malaaka jël ko bàyyi xale biy dund boobu da ngeen a xaw naa déng-déng tuuti ak boo xam ne dafa fekk benn buur ci digg palais ba nit ñi wër ko mu mu mu am xëy ba lool kéemaane lool sunu borom ne ko jël ko boobu de nee na xawoon na am lu ko diis waaye bi ko sunu boroom waxee ne ko ndax xam nga ne xale boobu bii nga doon jaaxale ci moom mu nekk ci digg àll ba moom cundung moom képp est-ce que xam nga ne moom laa sàmm ba ëllëg ma def ko buur bu mag boo bii nga xam ne moom nga di fekkoon mu am xëy ba ba yéem la nga xam ne kon sunu boroom ak càmmam kenn mënu koo ruuf Mbàkke ci lool nag lañuy xol ci yow ci dogu gi nga am ci pas-pas bi nga am ci bëgg gi nga bëgg sama am ak himma bi nga am kër sëñ gaawaan yépp ñu ngi ni toog ñoom ñëpp daal benn yitte lañ am muy liggéel sëñ gaawaan mooy liñ la waxoon fi kérok rek Mbàkke ñun wutuñu tur wutuñu alal wutuñu lenn xam nga ñun lan lañ bëgg mooy ngërëmal suñu borom wari doanu na lahi nag ak baru xale yi ñoom ñëpp ñu ngàndoon di la wax lañ waxoon rek Mbàkke yow daal Mbàkke soo waxee ne tooy na ñu ne la xepp soo waxee ne wow na ñu ne la koŋ ci liggéey sëñ Gaawaan ñu ngi sant nag presse bi euh, ñi presse écrite presse yi nga xamante ne mooy télévision yi ñi nga xam ne ñooy rajo yi ñi nga xam ñooy site internet yi ñëpp ñu ngi leen di sant te di leen gërëm rawatina waa TFM ak waa Sen TV ak Touba TV ak Lamp Fall TV. ñooñu kat taxaw nañ ci taxawaay yi nga xamante ne moo war waa RTS itam waa DTV euh, ñu ngi leen sant RTS itam nag monsieur le ministre xam nañ ne président de la république ndigal yi muy joxe mooy ñu fonk kër diine yi jox leen seen gëddawaay wàcc leen seen wàccuwaay waaye am nañ ci tuuti jaaxle mooy RTS moom bind nañ leen waaye gisuñ benn yoon buñ ci feeñee wala ñu taxaw ci loolu nag. xam nañ du duñ ci yéen waaye nag xaj na maanaam ci ñeneen la waaye du ci yéen ñun xam nañ ne président fonk na kër kilifa diine yi ndax kilifa yi toll ni yéen fu mu leen yónni fu mu fonkut du leen fa yónni waaye bu ñuy wax RTS waxuñu tey waaye lu jiitu bis bi moo tax ñuy wax maanaam yëgle yaag documentaire yaag màggalu daaw gaag ni ñu ko war a couvrir loolu moo tax ñuy wax léegi nag ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp di jégalu kàddu yi sëñ bi li ma waxoon rek <laughs> damay abbat tilli gi la ma waxoon ba mu dajeeg bukki bi ba ko bukki ne waxal jati dëgg ma bàyyi la nga dem daf na ko su ma xamoon ne de su ma jaaree fi dinaa dajeeg yow du ma fi jaar mu ne ko loolu dëgg la mu ne ko damaa yaakaar ne de dafa fekkul tey nga xiif ndax boo xiifoon danga ma def yëfi ndaw kundaa mu ne ko loolu tam dëgg la mu ne ko nag soo ma bàyyee ma dem nag xam naa ne ku ma dajeel ne ko bukki laa doon waxtaanal du ko gëm <laughs> mu ne ko loolu tam dëgg la waaye Mbàkke su ma xamoon su ma ñëwee fii nga yëkkati loo ma kàddu kon du ma ko du ma du ma ñëw kon dinaa yebal ki nga xamante ne rek mooy sunu rak te mate ko sëkk sëñ seexu naa mu ñëw yëkkati kàddu yi ñu ngi jégalu ñëpp di leen wax asalaamaaleykum wa rahmatullah wa barakaatu